waaw mais par rapport nag boo dee xool si ñooñu da ngay mën a am changement na ñoo xam ne fii Dakar la nekk depuis booy ay mag sax dañuy dem ba màgget mais pour nga retourner waat fii nii mooy problème parce que amoo fi woon dara bàyyoo fi woon dara aussi ngay dem nag ba lang dootoo nangoo ñibbisi parce que boo ñibbisee doo am dëkkuwaay mais lan moo la xelal yow ak soit diga all bi quoi yow yang ci diga all bi mbay lan mo la xelal. waaw comme xelal manam comme xelal ma ñibi ci fi waaw waaw. waaw mais man dama xol ne ñun am nañ ci so xamne ni nii mën naa fay liggey am bu mu amé moy yi mu amee moyens yi am na suuf so xamne ni nii mën naa fay top top am pendant 5 ans ou bien sax lu mat 5 ans mom lool mom leer na ma nañ amone yene moy 2 ans rek ma dem sama yone moyen yooyu lan la. mooy ah, mooy ay bayukaay wala affaire yooyu noonu rek wala jënd ay jur yu sakkan xam nga denc e fii nii parce que àll bi moom yaatu na fi mu toll nii wala doon wax fi mu toll ñun suñu suuf kese kese kese. Mm-hmm. boo ko doon wàññi par hectare mom bu matul diis yi. Mm-hmm. du ko hectare laa la wax de li fi am. Mm-hmm. bu matul dis hectare du wàññeeku loolu moom maam yaa ko fi bàyyi. maam ñoo si doon dund am na yeneen tool yoo xam ne sax dañ leen a maye loolu moo tax man la bu doo doon wàññi dix hectares yi moom bu matul yoo xam ne ñoo ko moomal suñu bopp bu matul moom du léegi yow boo fàttalikoo actuellement heure bi bu la fekkaan Dakar lan ngay def si la la lay fekk. heure bii nii heure bii moom da daan fekk ma wàcc moom daan fekk ma xëyee Dakar ñëw kaw Kaolack moo ñëwee ay ndékki sax taxaw raw ba ko def. si oto yi nii ndékki fii laa ko tàmmee fii e si ñaay bi ma indi ndékki sax ne sama xel man añ la dan def lu gana gën a bari añ même reer sax dama daan nelaw parfois man nelaw ba yeewoo quatre heures du matin taal sama oto dama xëy ma xëyee aussi su bëggi daal moom laa doon na pour peut-être si laay sama reer la sama ndékki fayar mom boo jaar ma laaj sama café ak sama sandwich ay vers quatre

léegi-léegi di nga dem ba doo fàtte nga fàtte dootoo xam tey la lundi tey la mardi tey la dimanche. waaw parfois nag loolu day am loolu moom day am si nit ki nekk nag parfois moom da ngay fàtte dimanche tey mais bu la ma fekkoon si oto yi moom damay xam chaque jour ban jour moo jot si oto yi daal laaj jour yoo xam ne nii il faut ngay xam jour yi pour sa liggéey ni ngay mën a liggéeyal. mais moyens yi nag xamoo ko te aussi boo dee ko suuf nit yi da am jom am na yoo xam ne nii mënoo koo nangu mënoo koo nangu mais àll bi fii moom bu amee ay moyens c'est léegi yow ban moyen moo la fekk fii si àll bi bi nga ñëwee nga jógee nag bi waaw. waaw nag bi premier moyen nag bi sax dernier moyen la parce que daaw laa ko jëlee fële daaw fore ànd ak doomam sa ñàkk laa ko naru doo yóbbu yow. parce que daa am poul bu fa daan ñew don samu kooku da daan samu ñukoy fay ma yaakar ne nak am nagam la parce que jamono yoy dina won nagam da jur ma yaakar ne nagam la après mo ñew fi ni joge fi dem sa ñak yow sa ñag voilà demoon après expliquer ko dudu boy wi ñew fu ci suba ga ne mom ko ne waa ko fekk muy dang ko fekk mu jur ba pare mom si même bus bobu waaw ah, si même jour bi. boobu yaa ngi jógee Dakar sus non bobu bobu ma bobu def na fi presque à peu près un an bobu at la fi def. mais si at bobu lo yoron bala nak bi. si at bobu non bi may ñew fi non sincèrement yoro mo dara dudul sama sac bi may wéekoo ay ah, yoron kessé kessé mo ba fi yoroon. Eh, actuellement nag alhamdulilah maa ngi sant yàlla moom. kon li la teraanga bi la dab bi bi nga am fii nga ko amee si àll bi. fii laa ko amee fii nii si àll bi fii. da nga for nag. maa nag. léegi bi nga foree nag bi. waaw. nga déclaré ko. ma dem déclaré ko parce que man xaw ma police laa xam moom. Ah. man ay chef de village yi ak ay chef de quartier yi man yooyu parce que nit ñi danoo gaaw a tuumalaate. waaw ah. te fii nii àll ak mbooy mbooy la. Ah. da ngay téye fii yëfu jàmbur xam nga mu diire ay yenn diire yi ñu ne yow sàcc nga. wala xam nga alal ju lewul la foroon nangam nangam. waaw yooyu nag laa doon bañ. Mhm. ma def ci chef du ko ne ko damaa bëggoon dem gendarmerie. Mhm. mun a mën a comme déclaré nga ko fii tey gendarmerie yooyu noonu yëpp garaawul mais man dinaa dem ci sous préfet Diouroup déclaré ko foofu léegi après ñoom luñ ci wax rek ñoo ñëwee ma expliqué. comme demee aussi ñëw na expliqué ma lépp. dama téye ko foofu am jamono joo xam ne nag dañuy yóbbu nag yi yëpp foofu noonu comme nag yi nu for ak yi nu yóbbu fourrière rek seen borom jël si wu leen ak yooyu noonu maanaam boo demee bu dee am na temps boo xam ne nii diire nga ko moom léegi ñoom dañ lay dañuy xool noo xam ne nii dañ ko mën a def yow jël moom gardé ko sa bi actuellement sax dama yaakar ne bu feñon sax borom danaan ma jëlal may la. ndeysan parce que lu daj naa si loo xam non man bi dama cee sonn la mo cee sonn day tag mo taw ba tas amul lu ma taful woon ni moy lolu ay piki rek lépp. waaw mu ngi alalu jàmbur la boromam bu ñëwoon tay tay tay dana sama nag ma ne ko am jëlal ma ko yóbbu ba chef de village ne ko san naga jëlal mu yóbbu. def na seew ñaata temps fi mu ne nii. fi mu toll nii def na ci man ay sept mois xam naa moom ko forom lan war. forom. koor gi paase nii. Mhm. xam naa un kon yow fi mu nekk nii sa fit mu ngi def tëg tëg tëg à tout moment mun nga ko ñàkk. pour ma ñàkk ko. Ah. non su ma ko ñàkkee damay xam ne du loo xam ne nii war naa ko mën a am rek ah laaj alalu jàmbur. waaw ah. alalu jàmbur alalu jàmbur la. déggoo xanaa boromam bu ñëwoon tey tey tey na ma sama nag la ma yóbbu ko ba chef du village ko borom nag borom nag baa ngi nii. ndeysaan waaw lu mu si xam ne mooy mais amour bi nag dèjà cofeel bi xam nga moom dina lay nag bi daf la wétali. waaw damay wétali complètement moom. Ah. damay wétali moom. damay wétali parce que damay may na bu ma am temps boo xam wala ay kii yooyu mais nag bi leer na ma ne dama ko yor won heure bi ni may fekk may nalaw te lolu ak jot la te di nalaw instant yi tollu mi ak nga don ci ak jot la ken kenn soxlo ko ku sañoon tout le moment da ngay liggéey di am xaliss waaw mais mom permettre na mom mom mo xam bu bari yo xamni ni waaw waaw mooy le complètement nak bi moy sa départ fi mu ne ni waaw nak bi dal moy sama départ samay bëy kon yaa ngi jox gars yi rendez-vous dans cinq ans fii ni mu mel ak nag yi incha allah. waaw soxla naa ko moom bu fekkente ne nag wi des samay loxo ba léegi. Hmm. balaa cinq ans. Hmm. incha moom ma takk sama ngandam gétt fii. kon wax ko gars yi nee leen dans cinq ans maa ngi leen di joxaat rendez fii. waaw dans cinq ans moom. rendez ngeen ñëwaat fii nii. moo leen ab gétt laa yor. incha allah incha allah. du ya, ma soñoon nag pas aku boromam da ko see ñàkk am ko ma soñoon nag boromam da siy talaat. ndeysaan jël nagam yóbbu. ndeysaan waaw ah, mau a gënal nag moom. ndeysaan mais aussi loolu bu mënta am moom. si mën a takk. sama yaram a kita, kau kon yow ñàkkoo no, non non ñàkkuma dara. mbay loo ñàkk li nga wax dafa dafa riche. ñàkkuma dara maa ngi dund maa ngi lekk maa ngi naan samay soxla maa ngi koy faj samay soxla sax bariwul man ay soxla yoo xam sonal nii. ñaata bor nga amee. xaw ma benn Dakar aw ma fa bor fii nii cent franc aw ma ko bor parce que du ma leb du ma leb dégg naa waaw il may leb happy yow daal xàppi magi? voilà gis nga ku xàppi xàppi nga ku xàppiwul ku xàppiwul maa ngi xàppi waxal loolu dama tarbi ah waaw mais noonu lay demee nag léegi moom ah. lay demee parce que wërsëg moom bu dee ñëw fu ne lay jógee waxal ma ku xàppi maa ngi xàppi ku xàppiwul man xàppi ah, na ku xàppi maa ngi xàppi de ku xàppiwul nag moom maa ngi xàppi